يا نور الهلال أقبل تعال te xamutoon ne ki ko war a soppi mooy doomi taxam Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam bi mu amee ñeent fukki at daan na faral di dem ci benn xunt bu ñu woowee xaaru Xiraa daan fa wéetal yàlla di fa jaamu yàlla sunu borom subhaanahu wa ta'ala. yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na xool bu baax li nga xam ne mooy mbindeefu yàlla yi naka la yàlla taxawale li nga xam ne moo di asamaan naka la yàlla taxawee tamit li nga xam ne moo di suuf samp montagne yi ak garab yi ki ko am doonul ay xeer doonul dara ca noonu côté bu mu tourné rek am benn leer ku mu fa gis mu leer nañ leer ga nag maa ngi koy wax naan ko jàngal yonent bi alayhi salaatu wasalaam tontu ko ne ko man mënumaa jàng mu dellu waxaat ko ko ne ko jàngal ba mu mat ñetti yoon mu tontu ko comme benn tontu boobu man mënumaa jàng jibril alayhi salaatu wasalaam moo ko feeñu woon wax ko ne ko jàngal ci sa turu boroom sa boroom mi nga xam ne moo bind lépp loo xam ne gis ko ko sa boroom mi nga xam ne moo bind nit ci toog ci lu mu dereet te itam di xamal nit loo xam ne mus koo xam ca noonu Muhammad alayhi salaatu wasalaam din na lool Jibril alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko waxee lool rek daal di dem yonente bi nag am na tiitaangee xol di daw ba muy daw ba ci àgg leer gi daal di ñëwaat dann ko Muhammad yow yaay yonente bi yàlla bi man maay Jibril côté bu mu tourné rek gis leeru Seydina Jibril gi alayhi salaatu wasalaam mu fees fépp mu koy wax ne ko Muhammad yow yaay yonente bi yàlla bi man maay Jibril ci noonu Seydina Muhammad alayhi salaatu maa ngay daw ba àgg fi nga xam ne moo di gërëm mu wax soxnaam Xadija ne ko sàng ma sàng ma ndax dama tiit mu ngi koy xamal ne ko dama jommi ndax li ma gis bu dul jinne di ay rab Khadija xamal dalal xelam ne ko yow yàlla du la gàccal mukk ndax dangaa baax yaa ngi dimbali ni nga xam ne ñoo néew doole Khadija dalal na ki nga xam ne moo di Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bi mu xëyee suba mu yóbbu ko ci benn boroom xam-xam boo xam ne ñoo ngi koy woowee Waraqatu Waraqatu ibnu Nawfal doonoon boroom xam-xam bu màgg mu di ko firil bi nga xam ne gis na ko mu ne ko Muhammad mii day mooy yonente bi yàlla bi waa Màkka nag dinañ ko tuumaal te itam dinañ ko génne dëkkam te itam dina gàddaay génn dëkk bi aka neexoon ma gudd woon fan ba bis bi nga xam ne moom lañ génne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ma mën a taxaw défendre ko Xadija nag sikk sàkkwul benn yoon ngir doon ki nga xam ne mooy ñëkk a gëm yonente bi alayhi salaatu amul benn bis muy sikk sàkk loolu li muy wax moom mooy lan li muy wax fu ko teg ay wax yoo xam ne kenn xamul fum ko teg ma ngi waar nit ñi di leen jubbanti mel na daf ñoo gën a xam dalal yow Abu Jahlin Muhammad lan la fi wax mu ne ko mi ngi indi ay baat daan ne ci yàlla la jógee ba soppi suñu nit ñi nit ñu bëri ñooy gàddaay dem ci moom ay jaam ak ñu néew doole rek ñoom ñoo ko topp kon nag da war a dal yow Abaa Jahlin mbir mii nag bu fekkee Muhammad def ci ndànk dinaa doon naa dal ci kawam ba mel nepp tan waaye nag bu fekkee ñi nga xam ne ñoo ko topp doon lu dul ay jaam kon nag mbir mi baa wóor na la ne kenn gisuñu ñëwal kenn gisuñu ñoom ñii nag dañ daan làqatu bis bu set bàyyi lañu dugg bis bu set ngir diglu ji waxtaan yonente bi alayhi salaatu wasalaam Bilaal ibnu Rabaah moom nag dafa doonoon ab jaam mu jóg ci guddi gi waaj Bilaal fooy jëm damay dem diglu ji kàddu yonente bi alayhi salaatu wasalaam amul lenn lu gën a neex diglu waxtaanu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci làmmiñu boppam yonente bi mi ngi wax ak nit ñi naan leen yéen nit ñi yéen nit ñi xam leen ne yéen ñëpp yéen a yem fa yàlla jaam yi ak sang yi ñoom ñëpp ñoo yem yàlla nag dafa bind nit ñi def ko ay wuute muy am góor ak jigéen waaye nag mu def ci ñoom ngir ñu xamante ki gën ci nit ñi nag ci yéen mooy ki nga xam ne moo gën a ragal yàlla ci yéen nit ñi xam leen ne li nga xam ne moom la waa màkk di jaamu doonul lenn dul ay xeer seen yàlla yi mënul leen dara ñoom rekk ñoo leen jëriñ yéen ñëpp yéen a yem fi yàlla sunu borom subhaanahu wa taala dina bégal ci yéen koo xam ne ragal na ko te bëgg ko aljana ju kawe maa ngi seede ne amul benn buur bu dul yàlla te Muhammad yàllaa ko yónni amul benn buur bu dul yàlla Muhammad yonent bi yàlla la amul benn buur dul yàlla ci guddi googu ñu dugg ci islaam bëri na lool Muhammad doon na wax ne ñun ak waa Màkka ñoo yem ñun ak kilifa yi ñoo yem yaa ngi dégg li muy wax yaa ngi dégg li muy wax yàqate gi ëpp na lool Muhammad li mu wax lépp dëgg la Muhammad Bilal kaay fii bala ñu laa mugal ma mën nañoo mugal sama yaram waaye sama ru kenn mënu ko mugal waaw xam naa loolu waaye mën ngaa ñëw fii ngir musal sa ruu ak sa yaram indi sa yaram fii te bàyyi foofu sa ruu loo xam ci Muhammad yonent bi yàlla la yonent yaa ngi dégg jàmbi li muy wax yonent dinaa la mugal bi nga dellu ginnaaw ci li nga xam ne wax nga ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ni seen yàlla yi doonul lenn lu dul ak ay xeer kase léegi mu ngi sàkk suñu yàlla yi mu ngi sàkk suñu yàlla yi ba ci jaam yi sax dañu jëw duñu xamal naka la ñoo de jaamoo yàlla may mu naan suñu yàlla yi lenn lu dul ay xeer ak ay doj aba taalib war ngaa jug ci sa doomu mbokk mi waa moom nag bu ngeen defee lii kon dana xaw a ñaaw lool ndax ñi ko topp doonul lenn lu dul néew doole ak néew kàttan ñu ñàkk ñi rek ñoo ko topp waaye ñu ñàkk ñooñu nag ñooy dem ba doon ay sang te moom rek yëmu ci waaye xaritam ba mbokkam ba topp na ko Abaa Bakrin Abu Bakr Abu Bakrin waaw topp na ko bokk na ci nga xam ne gëm nañ ko waaye Abu Bakrin moom kenn la mënut a yàq dara ci li nga xam ne mu lay woote te ma lii mënutuma koo déglu mënutuma koo déglu. waaw kon ne faw rek ñu daal di jug ci mbir mi bala moo ëppi loxo ñun ñooy sangi mag faw ñu jug ci mbir mi mu Mouhamed bàyyi li nga xam ne moom lay woote ñëw leen gaaw yonent bi yàlla bi mu ngi woote ca Kaaba ga la xew ba dañ ko jàpp xawma ñoo la ñu dem rek Ramadan Ramadan laytaka